yëkkati ay fitna ci réew Sénégal ci wàllu politique parlementaire judiciaire ak sociale organisation secteur privé bi nag moo xam waa SIAT waa CNP waa mouvement des entreprises du Sénégal INAK waa jàppo INAK waa yeesal GES ak CEDES naka noonu CNES ak waa SIS ñoom ñëpp nag daat na ñuy fësal njàqare gi ñu am jamono ji nag ci politique beeg ni muy doxee ci réew Sénégal démb la ñu fësal ab bataaxal nag di sàkku ci way politique yi nag ñu daal di dakkal xiiroog ngaayoo bi ñu nekkee ndax ñoom nag ñu ne bëgguñu benn yoon ay gàllankoor koom gi fii ci réew Sénégal te lu ñu mel nag bu dakkul secteur privé bi dina tàbbi ci jafe ñoom organisation secteur privé bi nag di sàkku ngir ñu daal di gën a préserver nag lu jëm ci wàllu investissement privé yi naka noonu nag yëngu-yëngu ñuy amal ci wàllu koom gi ba noppi nag di jébbal seenuk njaal ñi nga xam ne nag dañoo ñàkk seen njaboot ci fitna yi nga xam ne rek moo judd ci réewum Sénégal fitna yooyee sax nag moo waral yëglu gu bàyyeekoo ci waa Nations Unies ci biir yëglekaay bi di Sud Quotidien nag ña ngay àddu jëmale ci crise politique bi nga xam ne rek jur na ay coow fii ci réew Sénégal Sénégal ak i salfaañoo ñeel àq ak yelleefu doomu aadama yi au commissariat bu Nations Unies aux droits de l'homme nag ñoom ña ngay yëglu nag di sàkk ñu daal di ubbi ay enquêtes yu xoot a jëmale ko ci fitna yi nga xam ne rek moo fi jot a juddu waaye tamit leeraange tukkee nag ci faatuk ñetti ndaw yi nga xam ne rek boom nañu leen ci ay manifestations un cœur pour l'apaisement loolee nag la yëglekaay bii di Le Quotidien xëy daal di bind ci xëtam bu njëkk ne président Macky Sall ma ngay jokkoo ci téléphone ak Blinken secteur privé bi ñoom nag ña ngay yëglu di sàkku ci way yi ñu daal di dakkal fitna gi source a dellu siwaat ci ndaje mi nga xam ne rek yeew yi doon nañ ko amal ak waa aar suñuy élection ñoom ñii nag ña ngay xam ne ni ñu dakkal seenub xeex fi léegi amuñu li ñu bëgg donte ni nag ñu bëree ngi génn di sàkku dal ci biir réewu Sénégal ñu ci mel ni nag njiitu réew yi fi woon mu di Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade naka noonu ay médiation nag Déthié Fall di xam ne ci biir yëglekaay bi ne détermination képp moo mën a tax nag président Macky Sall dellu ginnaaw Cheikh Tidiane Dièye di ko feelu ne président Macky Sall nag méritowul suñu respect ay dëmboo ci ne sénégalais yi nag mënuñoo ay communiqué yoo xam ne rek bés bu yàlla sàkku ñu génnee ko di woote dal ci réew Sénégal fileeg ñaari fan ci weeru avril daal bu joxewul nguurug Sénégal ñun daañu def suñu kéem kàttan ba jële ko ci bopp réew Sénégal xalif général des Tidianes ne déet déet déet dal leen rek dal leen rekk ndax fitna moom du saafara benn jafe-jafe ma ngay woo ndaw ñi nag naan leen xam nañu naqar wi nekk ci seenub xol ak njàqare gi ngeen am waaye nag faw ngeen dal te ànd ak seenum xel yàq gi ngeen di yàq nag lu jëm ci moomeelu askan wi jàppante yi dox ci dafay gën a yokk jote gi ak ñàkkum kaaraange du loolee mooy doon saafara si ci fitna yi nga xam ne rek mooy juddu jamono ji ci réewu Sénégal la muy sàkku nag ci président Macky Sall moom Serigne Babacar Sy Mansour ak ñii di ko jéggi mi ngi ci biir yëglekaay bi di source a lu mu ci mënti doon daal président Macky Sall jamono ji nag dafay wut fu mu ko bu ñu sukkandikoo ci fu Walf Quotidien Thierno Diop di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne moom président Macky Sall moom yéeneem jamono ji rek mooy tuutal kii di Ousmane Sonko Jean Charles Biagui di xam ne ne Ousmane Sonko amul benn intérêt ci négociation yi nga xam ne rek gouvernement bu Sénégal mi ngi ko koy woo lu jëm ci wàllu négociation yu ni mel nag tuwaawoon nag ma ngay sàkk ñu jiital waxtaan lekaay bi di la Soleil nag ma ngay xam ne ne parlement bu CEDEAO nag ña ngay woo acteur politique yi ñu daal di ànd akub dal moom Abdou Diouf mi fi nekkoon jiital réewum Sénégal di leeral nag taxawaayam ci bataaxal bi nga xam ne rek génnee na ko jëmale ko situation politique bu Sénégal ci yéenekaay bi di enquête nag jamono jii kilifa diine yi ñoom ñëpp taxaw nañu àddu jëmale nag ci yëngu-yëngu yi ñu nemmeeku ci biir réew mi xalif général des Tidiane nag ma nga yëkkati ay kàdduy jàmm ak dialogue démb jëmale ko ci kaw askan week way politique yi njàqare googee nag moom la ñu nemmeeku ci xalif général bu laayeen moom mi woote dal la archevêque bu ndakaaru nag moom itam fësal taxawaayam ci ñu jiital intérêt Sénégal les échos dellu soit ci coow li nga xam ne rek moo am ci bataaxal bi nga xam ne rek kii di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf daal dinañ koy xaatim jëmale ko ci situation politique bi am ci réew Sénégal yëglekaay bi dellu soit ci leeraange gi nga xam ne rek Abdou Diouf defaat na ko ginnaaw kàddu yi nga xam ne rek dégg na ko ci lettre bu njëkk bi nga xam ne rek moom la génnee moom Abdou Diouf ma ngay xam ne nag ci biir yéglekaay bi ne conseil constitutionnel rek moo mën a jël ay décision yoo xam ne rek ñëpp daañu ci tënku ci boobee jamono nag l'observateur ma ngay séq waxtaan ak fi nekkoon Elimaanu Jëwriñ moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne nag ma ngay dellu ci ay dëggam ñeel dialogue boobee ñuy woote waaye nag lu jëm ci digganteem ak président Macky Sall ba ci tëj gi ñu tëj Ousmane Sonko naka noonu amnistie bi ñuy lam-laamee fii ci réew Sénégal jeexale yéglekaay yi ak bés bi la jour miy dellu siwaat tey ji nag ci lu jëm ci feetab